asalaamaaleykum mbokki Senegal. ma ngi nuyu di sant nyep. dafa am xew-xew bu amone fi Thiès ma bëggon ci waxtaan ak nit ñi pour leral man nak ma ngi tuddu Njaga yad di mag ci Kumba yad mi nga xamni mom lañu la fi ci Thiès quartier r100 xew-xew bi nak dafa dafa metti lol ci ñun metti metti bo xamni dañ koy sante yalla ndax lu lu am ñoo xam li lii mbiru sunu borom la waye nak dafa am lo xam ni dafa am ci xew-xew bi bo gisee ma bëgg leral leeral ci xew-xew bi moy wax ji nga xam wax nañ ko ci kumba kumba suñu rak la kumba julit la kumba talibé serigne touba la xamul won lu dem liggéey wàcc ci kër gi bu wàccee dem na dem ca salon ba muy liggéeyee ci muy tailleur ba li ci des mooy bu wàccee dem na ci daayira dem jàngi fa muy jànge xasaayit loolu la la kumba nekk woon ak ñun musa def lu bon musa wax loo xam ni dañ ko koy tere te musuma ko dóor musuma ko saaga certainement nak wax ji ñi wax nak nañ ñenn ñi wax ko man de gisuma ko ci mom te ñako ko fa mu ko defé tamit gënaluñu waaye waye ñaka fa wax tamit xamuñu ci mom dara ndax nit ki bo bëggee xam ci mom dara day fekk bu dee nga mën koo rañé ni fi la dëkk waye comme rañé won ni fi la dëkk ba ay mbokam ñoo ñoo dem ba morgue ba fekk ko fa kon nak bo cey wax wax ci wax ju rafet ba nga bind ci lo xamni ne la nga ciy bind day doon lu rafet circonstances yi liko indi ci liñ ci jot a xam mooy maanaam ab saay-saay dañoo ginnaaw ndax saay-saay boobu nga xam ni dëkkul dëkkul ci réew mi te ñu wax ni dafay ñëwoon daa amoon fu mu daan liggéeyee fa mu daan liggéeyee nag maanaam la ko la ko dem ni ko dama la fay lijjantil place ba jël carte d'identité am photo carte def fa benn demande demande boobu nag moom la jël employé ko woo ko ni ko comme temps yi kumba liggéeyul woon mu woo ko ni ko kaay ma wutal la kaay wutal naa la place ba kaay jël place ba kumba tàggoo ci kër gi ni maa ngi dem liggéeyi ba mu demee liggéeyi am mu ànd ak moom ndeke booba da koy saay saaye saay saaye booba nag ca la ko defee lu bon la mu ko def looloo waral mu mu mu fekkoon ko fa mu nekkoon loola am ca mais kumba moom musta génn moom li waral loolu mooy bi mbir mi amee bi ñuy dox ci mbir mi ci lañ dem ba xamal sunu bopp ñun ni gis nañu ci fa mu doon liggéeyee carte d'identité buñ ko jëloon defal ko fa ab demandam kon nag kon waa ji foofu la ko naxe foofu la ko naxe te foofu la mbir e, foofu la fexe ay pexeem ba liy am loolu moom nooy di ci nekk ñun nag bu ñu sañoon képp ku ciy wax lu loo mën a mën a wax nga dem ba xam li ngay wax door koo wax wax ju rafet moo gën wax ju ñaaw te nit koo xam ne dafa faatu ngay wax ci moom ci wax joo xam ni tegawul fenn te woor te ku ne xam li nekk ci woor ah moom day kumba moom man gëm naa ni moo nga àjjana lu ci waaye wax nag sa bopp ko wax waaye kumba moom man mi magam tax nekkoon nag ci kër gi xam naa ni sunu borom yàlla defal na ko tawféex waaw ndax euh, réew mi damaa defe ni dafa am ñaari doom léegi ci ñaari doom yooyu xëy na doom jële dafa gënoon a yaatu suñu doom léegi nag ñoom bi ñu demee ba xam ni jaadootul xëy na ñoom ñëw nañ fi ci ñëwin goo xam ni tamit boobu yéex nañu lool ndax euh, dañoo def damaa defe ni Thiès ak Tamba benn la ndax lépp Sénégal la bi mais bi lii xewee Tamba lii xew Thiès njëkk te li xew Tamba gën a yaatu man tamit damay daal di jaaxle moo taxoon korok xëy na ma wax nit ñi dégg ma ma waxaat ni tamit ñëw nañ fi waaye nag c'est euh, li ñu def moom xanaa dañoo dem ba sës rek doog a ñëw waaye ñun kumba séntuwuñ ci alal séntuwuñ ci dara amoon kumba moo ñu gënal looy gis ci àddina ndax sonaluñu woon dañoo ñàkk lu rëy ci ñun te loolu moom duñ ko duñ ko fàtte mukk mukk mukk ndax kumba vraiment sama xarit la woon te defe naa ni euh, maa ngi ñaan yàlla ci kàttanam ak yërmandeem sunu borom yàlla defal ko taw tawféex bu baax a baax a baax. état moom ku ne xam na xam na capacité am ku ne xam na tamit euh, ni ni enquête di doxee comme ñoom ñi ngi ci enquête bi tey dox ci enquête bi da leen di déglu rek waaye bu ñu sañoon li ma leen wax rek laa ci wax li ñu gën a bëgg mooy ñu jàppal ñu waa ji bu ñu ko jàppee rek wax dëgg yàlla xëy na xol yi sax xëy na li ci nekk lépp mën mënta dañ waaye dina mën a apaiser wu tuuti ci loolu. waaye ab saay-saay boo xam kenn xamul fu mu dëkk kenn xamul nu mu nu mu duggee Sénégal ñëw fii fekk doomu jàmbur joo xam ni sunu borom yàlla daal def ci moom tawféex ak ak bëgg ko yaayam bëgg ak famem ni ko bëgg mu xëy lor ko ci nii ay jàmbur taxaw fee di wax ci loo xam ne li ñuy wax dara du ci dëgg man daal wax dëgg yàlla xamatuma ban Sénégal lañ nekk man jàgga xamatuma ko wax dëgg yàlla te li ñuy wax képp ku ci wax war ngaa waroon seet sa digganteeg sa travail ba man loolu rek moo ma naqari ci àddina ndax kumba gisuma ko woon ci lu bon te ñi koy wax waroon nañoo seet ni lii ñuy wax ëllëg kenn ku nekk di nga di nga tëdd ci bàmmeel te ña ko daan wax ca fa fa mu fa nga xam ni fa la faatoo ñooñu kenn xamul xamul ko dara dara dara loo xam ni ndax musuñu koo gis xamuñu ko dañuy ñëw di wax seen wax yoo xam ne teguwul fenn fenn fenn fenn te wax ci bon dëkkul fa mu jëm damaa defe ni fa mu jugee fa la dëkk foo wax ji jóge fa la dëkk te ñoo ñu doon wax waroon nañoo seet seen bopp ndax kenn ku nekk ca ñoom kenn ku nekk am na loo xam ne tey ca R100 ñoom xam nañ leen kon nag wax jooju ñu wax ah xëy na nekkul ci kumba ci ñoom ñooñu la nekk waaw ci ñoom ñoo ñu ñoo wax la tax loola am la ñu wax nag ba nit ñi wax wax ci ampleur boobu ñoom la concerne bàyyi nañ leen ak yàlla ak yeneen bi yàlla na sunu borom yàlla leeral lépp moom mi am ya leeral daal la ñuy sàkku ci nit